katu be kela pim pam pim pam a ah, ite <laughs> sino lano bar san silo bi diari nyamen ila radio be kuma la moto kono ni me hakilo to be borle kala ma nyanna men kala de walanto ibe kule kala ma nyanna men kala woto besin hakilo to ayo maro din tolla ndol dum mu ya jamme noma kurtu bu yolti mandin kol ko ni kurtu ko posi wulta bu yoka mune batu fokka wuli dron woto kamala ya ya la tamol kono ala tamo tama na wulta dron ntol fana na ñaton ko si wuli nsi kala kalamuta ni banko kan kayita ni la ko ko ya jamme kanala ton tol ma ya jamme jorang soto ya jamme men ke ñim banku kan ntol ma jorang soto yalo amun dan kamuru ka muru ño daano le kan e ko do ke ini mbara ite men bota basé bari mbafala ko mbafale ko menu ko kuma tan fo e, wandi banko kan ni hayta ina e jam bari ntol ni tol bele wuluta jam mbe mbe mbe wuluta jang kuluta jam be menta jang sai kam ne bori kata wonde banko kay ka kuma kundan fo oto yalon ko e mantara tonya fola mo be tonya fola ibe wulu banko kan na jay fo don ni ni late fanna bari law kuma kundan wulu e ba fola wonde banko le kan ay diela oto e si jede kana jam kuma kan wala e anin ndol national transport control association alaji mumin si Eh, gambia be gambia dai fo be atel tambindi ka ken na ke bati njikitala nte men felete nte mu kodine tolti kuwo ku be keri akan ki jele kataje kana men mun nakul akole ya kolti ga tele wali ya faye walla moli en sambala kan ya faye sai alaji mu si fanan alaji ko mumunati wala mu gambia ma di gambia ma sakunda jumala woti ala haji ya ya ejeje jamme wala gambia ma di ntolŋaje ko nte ya jonola oto eh, comme kuwo keña kamalan ɓe kumo dannali e jam folo mbadiŋola ala barka okay. mu tedd mi ñu leen di kenn ku nekk ci sa ak sa di bi di alhaji Momini Sy di nuyu njiiti réew mi nga xam ne képp ku baax ku nekk mbaax ci moom nga koo fi na wax nañ ci may da leen xamal ne leen ñun fi pour campagne de li li fi yaay def lañ wax ñun ay driver lañ suñ problème moo tax Gambietti bi in bàyyi ñu fii pour ñu ñëw wax ak réew mi li nga xam ne mooy yokkuteeg réew mi te yaay jàmme yokkuteeg réew mi la bëgg ñun ñi fi toog nii ñëpp ñu ngi xamal président ne ko ñu fi toog nii ñëpp doomi réew mi lañ te ñëpp a ngi ci sa gannaaw ànd ak yow loo joxoon nañ ko dog su ma la ko waxee war nga ko xam ndax loo lépp foo oo moom ministre moom ooyu la fa te nag duñ mën a nekk ci gannaaw moominu si moominu si nekk ci sa gannaaw kon duñ nekk ci sa gannaaw ñu ngi ci sa gannaaw tey ñu ci sa gannaaw ëllëg gàcc ngaalaama li nga def ci réew mi kontaan nañ ci yàlla moo am pay ak kattan yal na yàlla yàggale ci suñ kanam li gaa yi dañ ñaanal sëñ bi mooy yéen a fi yàgg te wér yooyu yéen a fi yàgg te boo baaxee rek réew mi baax te boo baaxee rek ñu baax man maa njëkkaa dawalee fii from Banjul te boo ko capital booba jéemaa jigéen rang-rang bi pareegul ñun ñooy driver yi nga xam ne ñoo def sarse Banjul dem Guinée Bissau dem Guinée ah, Conakry dem Mali dem Mauritania président bi mu ngi nii keeg ku fee dawal oto ku ne xam ne fi nga yëngatoo moo tax ñu ne nañ jox driver yi mag yi suñ kilifa yi nag ñoom it yéen leen fi yàlla yàggal dama fàtte loolu ñu baax leen te ñu ngi ñaan yàlla yàggal yàggal leen ci suñ kanam ndax ñoom nuñ fi gën a yàggee la ñu gën a baax wax ji nag mooy fi mu ne ni time bi dafa jeex waaye président ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu bay duma yu ñuy duma nga man ñu koy teggil ngir yalla ak jëmmi rasulallah mi nga xam yow yow la yalla baaxee tegg la ci suñu kanam wasalaam té lu ñoo waxtaan moy affaire yi driver bi driver yi ak moto yi kon euh, programme bi lu am solo la alaaji muumini jëf euh, alaaji Sidi ndjay ba tay ñu ngi dellu di gërëmaat gaay di len santa di nga xam ñu jàkkaarloo ak GRTS di ñu sétane fi fu mu nekkani ñu ngi ñëw ci driver bu baax ak driver bu bon loolu lañ bëgg ngeen wax kenn ku nekk xam nga driver bu baax naka la war a def soo déggee ambassadeur mooy driver nga dugg léegi léegi léegi bitim réew nga dawal léegi léegi loo ne man anglais laa jàng français laa jàng portugais eh, espagnol kooku driver mooy ambassadeur su du ne loolu su fekkee da nga jàng ci ci làkk bi nga jàng ci iskure boobu nga mun a demee su fekkee kay di ñëw na fa mooy loolu doo ko waaye driver dangay dugg léegi ci réew jàmbur nga dawal lagi trafic bi yëpp la kon driver moy ambassadeur loolu nag dafay nek driver bu baax so déggee ñu nek ambassadeur moy driver bu baax te driver bala nga baax nga bëgg sa rew driver bala nga baax ngay fonk sa boss driver bala nga baax nga fonk sa patron driver bala nga baax nga fonk sa passager borom bitik su ubbe bitikam bes ku fa dugga mu ak fa driver bi loolu mooy sa bitik man de ma ñëw ak suma xaalis dugga sa biir oto kon yow war nga am expérience naxante ak man be wàccee ma bànjul jot suma xaalis keneen duggaat waaye muñal passage yomb na waay lu mu yàgg sa oto du fa at three four hours fekk sori na waaye bànjul pasasi kay passage du fa am ten minutes kon muñal ko ba mu wàcca mu ñàkk xam sa jikku bu bon bi loolu yomb na bu waxee loo xam ne eh, kiiwul la seetal sa bi rek. continuer léegi tey mu wàcc su ko defee nga jot sa bopp ci ngay xam na yow tam nit koo xam ne jëfinam ndax ñaareel yow boo nekkee driver boo xam ne driver bu baax nga mun ngaa jàpp saay saay loolu moo tax ñu def miiro bi ci biir mooy na nga xool sii di muy wax nga xamee ko bu wàccee fu nekk police baa ngi taxaw bàyyi leen ci borom uniforme bale walla bàyyi leen ci borom kii bi Samba Kuka bale wala borom bugga bale lam doon wax di àndul ak yoon driver bu baax moo ëpp police parce que police ku gis mu def uniforme rek dina ko moytu waaye yow driver bi lu nekk mën nañ koo wax sa kanam yow yaa seet na naka nga fonkee sa réew naka ngay aaree sa réew te marchandise bu nekk ci àdduna bi yëpp tam driver moo gën a neex yàqale yéen xam ngeen ne lance-pierre mun naa toroxal driver parce que bu ñu tojee sa windscreen doo dem borom bitig bu ne kiri mu tëj buntay kenn du fa dugg waaye yow oto bi mun loo ko dugal ci bit ci biti rek ngay nekk xale bu mun na laa toroxal kon jàmma drive fa moo ko war a gën a bi kon important na pour ñu waxtaan drive bu baax drive su baaxee na xam ne na lay businessé kuy businessé bak na na xam ne moom ak yàlla ñoo nekk bés bu nekk ak fu munta nekk moom ak yàlla moom a nekk sëriñ bi wax na ko ilmaam ma Aliou Ka wax na ko du benn yoon du ñaari yoon wax na ne driver bu baax na xam ne bàkkan lay business kon driver dafa war a xam naka lay jógee ci lal am bee duggee ci oto bi su baaxee ci lal am bi bee dugg ci oto bi dafay continuer baax ba mu wàcc waaye ku taal mégo cigarette bu bon booy jàppal ma liital ma defal ma ni drive bu baax warta def te képp kuy dem ut drive yi lansin dangaa nekk ba nga xam ne yow da nga confidence sa everything dafa correct nga door a dem ci lansin sin nga dem ci seeni nga ne ko dama mu xol la si kaw bi ci su mu jut yëpp le papa bu la joxe na nga ñew tourner cap bi def ko ci gano kon or nga or nga or nga ko te ñun yëpp ku fi nekk xam nga li wax kuy or fan mooy place kuy or wone ne ku baax la te ma dem be fale xam ne man ku bon la ñun yëpp xam nañ lan la wax kuy or te moom dañ ko taaj foofu ne pour soo ñëwee ut kayit na la xool ci kaw ba ci suuf nam la jusee na la joxee noonu kayit kon soo fexee bee def loolu mu jox la ko ngir yàlla na nga continuer noonu ba nga bàyyi si liggéey boobu. gisee kilifa yi fii di nattale ay ñeneenti fukki dañ def lu baax suñ def tool lu baax du duñ demee nii. konoon gumbo nañ ñu ngee yeleen wala tànka yi dàmm nañ wala ñu ngee naan wax ne ay yooyu bañ defee na ci lañ bi boobu amagul 20 years sax ci la amas dañ jeexal ci. nam accident am so sax kéemaan la yéen a ngi koy jus léegi yoo léegi ñun ay driver yi danañ jus accident boo xam ne ñun yëpp danañ ne xii kéemaan la dëgg la yàlla mooy dogal lu nekk nag waaye na am na yoo xam ne dafa dee xew ñun yëpp ñu toog déggeer bot rek moo tax ñu ne waaye dañoo xam ne lii kéemaan la ñàkk a yëru bokk na ci xamadi bokk na ci ñàkk wone fa mu jógee fu baax wone na ko loolu yëpp danañ ko gis ci accident loolu na su ko defee ñun ñi nga xam ne ñun lañ jiital ci garage yi ñun ñoo ci gën a méttilu parce que sa ndaw bu defee lu mu warta def yow fa dara lu kon nañ digal driver yi ñu doxee lu baax nu fexe lu baax passager bi tam noonu la war a mel su paree ne man liggéey de moo ma jóg soo duggee ci bi mun nañoo ñàkk parce que seen ebe nga ni Serekunda wàccee ko Banjul ebe ko Banjul wàccee ko Serekunda wax dëgg yàlla pour ngeen muñalante dara waaye kenn ku nekk na yaa xam noo jógee sa kër kon nag nañ dolli yër bi ñu xam ko nañu waxtaanal ak suñ nit ñi nañu waxtaanal suñ driver yi te chef de garage yi yéen a day gën a am chance pour wax ak driver yi parce que driver bu paak dana ñëw si sa